right euh, Sirifo Sonko euh, Mr euh, Dia comme ni ñu ko waxee rek mooy ci mbiru stadium bi Gambien su bëri dañ feel disappointed ndax ay at léegi ñu gëj a gis suñu Scorpions suñu play suñu own stadium Scorpions si frustrate nañ waaye fans yi itam frustrate nañ ban analyse ngay def ci ba tey 283 millions ñu spend ko ci rénover stadium waaye ba tey mënuñoo mit li nga xam ne mooy di standard of CAF wala sax FIFA. jërëjëf Garmi. Uh, wa rew mi man si la boka nama nañ pour ñu am home game dem setan scorpion si, bi xibar ñeke stadium bi paré na kaaf approve nañ ko man mang don doon ne suba lay dem si stadium parce que dama xam ne soo dem rek do am place ngir capacity bu fa nek ak ñu yàkkamti pour dem setan yi nga am na ñoy scorpion si soo teeluta dem do am place lolu wajalon nako nako bu baaxa baax xaalis biñ ci def nag euh, bari na tuuti na waaye des na lan nga soxla waaye gom naa ne kaaf euh, biñ sospenee mbiri stadium bi wax nañ luñ ñu war a def ak naka lañ ko war a defee mm-hmm. loolu benn la ci léegi soo xamee li la war walla lan nga war a def mm-hmm. loolu doo ci mun a am ngànta pour nga def lu war mm-hmm. leneen li mooy ndax ministry bi youth ak sport ñu ngay liggéey ak ñi nga am ne ñooy GFF parce que ñi nekk GFF lu ñu ëpp ci ñoom yàgg nañ fa du rek ne yàgg nañ ci sport bi surtout football waaye tukki nañ dem yeneen dëkka gis nañ ñooñu seen stadium yi nu mel gis nañ ñooñu seen béréb yi li nga xam ne moo nekk foofu kon ñun fuñ tollu tey li ñoo laajte mooy ana GFF ci liggéey bii waxuñ ne ñoom ñoo ko war a enu ñoo ko saytu mm. waaye war nañoo mën a xool ne lii jaarut yoon wala fii li ngeen fi def du nii mm. ngir expérience boobu su dul expertise sa waa expérience maanaam yàgga ci mbir mm. di ko gis di ci daj lu bari loolu war naa mën a feeñ ci ñoom ñu gis ko xaalis buñ ci dépasse yëpp contrat bi naka lañ ko joxe xam nga soo gisee lu bari nit ki di ñaax di encourage li nga xam ne mooy bidding maanaam lii lañ bugg a kan moo ñu ko mën a jox diw ñëw ne man keneen mu ne man keneen mu ne man yaakaar naa ku ne man am na lum la woon Mm. lu ci ëppa ci loo xam ne mus na koo def. Mm. ñeneen dina ñëw ne la stadium bi man maa ko mus a sampa wala rénové naa fi mm. wala def naa nangam. kooku am na lim la tegal. ñaareel yan façon jumtuwaay la am bagage ak ñan la moo liggéeyal nit ki mun naa am contrat sax niñ ko waxee fii nga jëli ñeneen ci biti nga xam ne loolu mooy seen liggéey. yow li la war su boobaa mooy liñ soxla. nangu nangutoo moo fa nekk. ci gàttal daal lan moo nekk ci contrat léegi su ma soxlee dara en li ma soxla yow joxuloo ma loolu mm. contrat boobu ba tey àggagut mutagut mm. parce que li tax ma jox la xaalis pour nga def ko ba tey qualifié kon contrat bi lu war a continuer la mm. ba ma jox li ma soxla waaye lan moo dee nekk ci contrat gi lan mooy nangu too bi du rek stadium bi moo tax may wax de am na contrat yu bari fii ci réew mi joxe nañ contrat waaye lan moo fa nekk et da ngaa gis ne even yoon léegi-léeg nga defar yoon du yàgga mu commencé yàqu lana nekk ci contrat bi mënu ma laa jox ay million nga defar loo xam ne ci diir bu gàtta mu commencé yàqu déedéet mënu loo demee noonu lan moo dee nekk ci nangu tooy lan moo nekk ci contrat bi lu ñu war a laaj la su dee nataal li ma gis ci media bi ñu ko génnee mooy di recent pictures ak videos loolu waruñu woon a wax kaaf sa kaay leen seet soo xoolee picc bi ñax bi feesu loolu lu ees li nga defaraat mu ees lii rek warula wax kaaf sa ne ko kaay waaye balaa kaaf di ñëw ñoo xam ne xam nañ mbiri stadium xam nañ mbiri liggéey lu tawanuloo ñooñu ne leen kaay jàppaleen ñu ngeen seen ndax lu defar noonu la wala baax na fan lañ am juumte man journaliste moo ma jox xibaar ne ma kaaf mu ngi war a ñëw inspect waaye duñ paas journaliste taskati xibaar mu ne information bu wër la am ci ñoo xam ne ñoo wane ne liggéey bu nekk ci stadium bi waxu ne baaxut de waaye dafa des te su kaaf ñëwee duñ paas man fa laa commencé discours ngir fi mu jëlee xibaaram fu wér la moo tax buñ ne kaaf ne ñun jàlluñu rek aw ma ci woon euh, benn disappointment ngir am naa xibaar bi li jiitu bala ñu wax lu jógee ci kaaf leneen li mooy ñii tas xibaar dañ tollu fi nga xam ne lu nekk ci dëkk bi fi ñu ne breaking news breaking news mënuloo xam ne breaking news stadium bi pare na kaaf approuve na te kaaf ñëwagut fii fan lañ jëlee façon xibaar yooyu. Hmm. lii te ministre bi ak GFF ñoom ñëpp ñoo amee waaru sport bi su fekkee ne nit ñi ñu ngi tasaare loolu si social media bi ñoom waroon nañoo génna ñu leeral loolu ci binda wala ci ay kaddu ne kaaf ñëwaguñ mbir mi ñun duñ mën a wax ne qualifié nañ suñ game bi dinañ ko hoos lu dul ñu déggee si kaaf waaye kan si ñoom moo ko def su amee man dégguma ko fen te gisuma ko fen lu waroon a am la gannaaw bu ñu waxee tam ne qualifié wuñ pour ñu hoos suñ home game ndax ñoom def nañ ay joint press release wala press conference hmm. maanaam ñu oo taskati xibaar yi ñu nettali wax jaar-jaar bi rénovation bi li kaaf soxla ak ñoom lu ñu liggéey lan lañ joxe ak luñ ci màkkee lan la kaaf wax ne mooy jafe-jafe bi tey ñu bari ñu ngee wax waaye lan moo tappaasuñ ndax ñoom génn nañ ñu wax ñu ko déedéet dafa mel ni ñun dañ leen desee ñor dañ ñu desee yëg ngir li soo nekkee ci place ñi si sa gannaaw ñoo tax ñoo la jox doole waaye li nga xam ne mooy check and balances accountability transparency dafa des fii si suñ institution si ñoo xam ne ñoo amee di doxal GFF tey lu bari lu ñoo def xaalis suñ cee dégga kan mooy mun a taxaw pour gis ne GFF mu def lu war kooku soo ko régulee tuut kañ la ñoo mun a am lu war ministre bi tam noonu ñoom ñaar waroon nañoo toog ci ministre bi ki ko jiite JFF ki ko jiite ñu wax ak taskati xibaar yi suñu waxee lu ñoo wax ñu sànni leen ci laaj ak tontu ñu mun a leeral den su boobaa si ngay mun a jégalu wane ne li ñëpp doon séntu luñ yaakaar amul nga jégalu ci loolu te nga wax ñu kañ parce que liggéey bi léegi <laughs> ñoom ñu ne pare na léegi su fekkee ne kaaf mu ne paasuñ kon ba tey dañ soxlaat xaalis waaye ndax xaalis am na pour ñu jekkali liggéey bi comme pareegul parce que doo mun a ne pare na te ba tey mënuñ faa football man su ma gis-gis stadium bi pareegul ndax am na pour ñu war koo mun a jekkal suy waaw fan la war a jógee ak ñan ñoo amee woon liggéey bi ministre bi euh, honorable Bakary Badji yoon yoon man dama daan dem këram ñu ne ma dem na ci stadium bi maanaam mu fa doon dem di seet taxawaayam ak lim def yëpp sonna na ci ku la ne sonnut ci rek xëj na dese naa xam moom involvement bu mu ci am TikTok page am bi ak yeneen page man dama ko daan toppa update suñ daan def liggéey yi ñu ngee post fan la toolu ak fii waaye dafa mel ni liggéey bi yëpp su kaaf waxee ne qualify yoo lañ ko mun a tuddee parce que liñ soxla joxaguñ ñu ko loolu kenn du mun a xam ne lii dañ ci mun a am ndam mm. te du lu ees lu ñu war a rénover la ñu defaraat ko ci gàttal daal ci réew mi mm. nañ di jox nit ñi cër ñu fulal leen faydal leen ah. benn ci yooyu ah. mooy nañ ñu jox information bu wér te bañ ñoo bàyyee social media bi ku nekk di wax xalaatam ah. ñoom mii ndey mbila bi lu nit ñi laam-laam ñoom ñoo gën a xam lu xew war ne ñoo ja ja jànkuwantel ñi nga xam ne ñooy tas xibaar di ñu jox information bu wér waaye yaakaar tas na ngir luñ doon séntu ne dina am amagut man li ma laajte mooy kañ la moo am